asalaamaaleykum wa Sénégal asalaamaaleykum wa aduna, toujours mbégte laay am ak contentement ah di jakarlo yéen nee chaque vendredi ni lay démé ci sama biir plateau lu bees duma ci wéet ben yoon lu tax ma ne ci wéet ben yoon man ak yéen dina metti dina metti dina yag ndax damay xol artiste bi nga xamante ne génnee na lu bees tak ñu invité ko ci plateau bi ñëw tok waxtaan nak mom tay nak may am mbégte ak contentement di dalal en ah, Sabel parce que elle a une voix d'or génné lu bees tak tuddee ko rêve d'amour ah di doom ci Ndiouga Dieng ah di rak ci Alpha Dieng di mak ci Momo ak Pama jeng nee naa ko wéydi wéydi bi yow boo woyul ci jamono ji da ngay di ba tax na régie su baaxee ñu dem xooli clip bu Sabel jeng bi Rêve d'amour ñu ñëwaat ci plateau bi nelaw dal di gént benn waay voilà chers téléspectateurs c' était Sabel Dieng ah mu tuddee ko rêve d' amour euh, Sabel bi ensemble ah, sama jong ma bi nee la yow di jàkkaarloo yow saa su nekk daf may neex dama lay bàyyi nga nuyu wax askan wi la doon seetaan ñu daal di xuus ci waxtaan wi. salaamaaleykum euh, Binta maa lay nuyu. Euh, euh, euh, di nuyu téléspectateur télémusique yep di nuyu wa aduna ah Sénégal bàyyiwuma kenn ma ngi nuyu ñep di len jaajëfal bu baax a baax. d'accord bon Sabel dañuy ñëw ci waxtaan wi ndax gis nañ en 2018 da nga génnee njukkal sa góor en 2019 nga ñëw génnee tani mbëggeel en 2020 nga génnee lu bees tak tout ko rêve d'amour Sabel nak xanaa doo ma depuis 2018 ba légui da nga do rêvé xanaa légui war nga yew <laughs> yeewu naa bi ma pamaa ci genti gi nak laay yew parce que ma ngi don rêvé mu neex ba bëgg dé dee franchement pamaa ma mhm. mais bi ma yeewee aussi neex na ba tey parce que ma génnee ci buntu kër gis ngeen damaa daje ki ma doon rêvé. Mhm. voilà mhm. donc euh, moo ngi noonu comme ni nga ko waxee rek 2018 euh, la ñu génne suñu premier single. 2019 mhm. euh, aussi ñu génne Tani Mbëggeel ak Gaynde donc je pense deux mille 2020. ñu génne mat nga jigéen. ak tey li nga xamante ni mooy rêve d'amour. yow naa nag. yow nga ci gént gi waaw mais tam sabel tam paama tam kan la war nga gént lu am jom loolu paama ñëw di yàq say nelaw. lakkale par ma dafa yàq sama àdduna <laughs> xale bi dafa yàq sama àdduna man xamoon naa ne bis mooy réewe xale bi moo koy yàq parce que daf ma teg bët daf ma sonal mais yàlla baax na <laughs> voilà Sabel euh, ñu gis ni euh, dangaa reprendre euh, ma philosophie de Amel Bent Euh, mu nekk euh, tube ba nga xamantene dafa am succès dans le monde entier euh, pourquoi nga def choix reprendre son Amel Bent bi est-ce que est-ce que dafa am histoire bu personnelle ba nga xamantene ne da ko dund wala dalaa neex rek nga reprendre son bi voilà, son amel bant bi ma philosophie nak euh, dafa nek son bu nostalgique ci man parce que nak bima gëné euh, nek xalé ay at ci ginnaw mhm. donc dafa nekkoon son bo xamanteni dama ko don foé euh diko diko diko di chantonné mhm. donc euh, ma philosophie mu marqué ma mhm. euh mu nek son bu ma sentir aussi voilà motax tay ben jour la tok ni rek di di way ma philosophie sama xel jox ma ma composer côté tey mu rêve d'amour bi. Mhm. donc euh, c'est ça. Mhm. bon euh, Sabel est-ce que ça a été facile hein, de reprendre euh, son Amel Bent bi pour pour yow ndax yomboon na reprendre son bi. bon c'était pas évident. Mhm. parce que chaque jour la wax ni son euh, ma koy live sax damay wax ne mo gëna metti ci bokk na ci bon son yi gëna metti métti ci son yi may live. Mm. parce que bo setlo son bi bokoy way do am souffle. d'accord donc doo doo doo da ngay da ngay way di dem rek doo mhm. doo doo souffler quoi. Mhm. du il faut nga soit nga am euh, nga am force. Mhm. pour pour mën a way euh, pour mën a tenir loolu. donc bokk na ci way yi nga xamante ne peut-être gën na gën na compliqué ci. pour ci morceau yi pour live ko donc euh, taxul woon mu yomb torop mais aussi taxul woon tam mu metti torop ci man voilà parce que comme doon naa dégg son bi tout le temps doon naa ko aussi di ko fowee ndànk-ndànk donc du ma ñëw je comme mu nice nga gis gars yi accompagner ma si ñu changer musique bi carrément mu nice d' euh, bon euh, Sabel euh, dañuy ñëw euh, ci euh, clip bi dañuy dellu ci waat ci clip bi ndax buñu xolé clip bi yaa ngi ci ànd ak sa rakk Pama Dieng mu la sonal la trop ñu gis complicité bu extraordinaire yéen ñaar lu tax fu ñu gis Sabel dien rek gis fa Pama Dieng waaw man mën naa ne Pama moo ma dugal ci musique parce que je euh, euh, suis <laughs> parce que responsable commercial donc di euh, après bi ma mes études au Maroc à Casablanca donc ñëw di liggéey euh, Pama nak euh, li tax ma ne ma ci musique moy mhm. dama don dem euh, di gérer mhm. marketing commercial am ci mhm. tay entreprise bi nga xamanteni fa la nekkoon maison de production bi mu doon donc ma di gérer ci non la ma dougalé ci way parce que dafa doon dañ doon nek studio bu ñu studio bu enregistre buy enregistré wala muy def ay atelier man ma tok diko jappel jàppal kër yi parce que man yàgg naa di di way di wayantu quoi parce que mais musuma ko won def liggéey musuma ko woon def loo musique dama juste ni rek wala may ay ay di di di guitare mhm. affaire mhm. la peut-être euh, euh, ci sama sama sama sama mhm. voilà quoi ci euh, parce que non la def studio donc ba jour premier concert euh, mu nekkoon euh, école euh, lycée des Parcelles Assainies. Mm-hmm. mu comme yow yaay téye kër yi ci ci kii bi. Mm-hmm. ci studio bi. di nga ñëw nag jouer concert bi ma ko non tout sauf ça. Mm-hmm. mënuma taxaw di jouer concert. parce que duma duma duma way kat duma taxaw di jouer concert mu ne ma waykat nga kay. kon li ngay def lan la ma ne ko non duma way kat duma jouer loolu bëgg na torop nak mais duma jouer. du jouer mais après ma gis. par la suite mais par la suite dama ko yërëm <laughs> je me rappelle voilà ma me mhm. ko non garaawul Je ma def ko rek ma mhm. voilà Non, commencé deuxième concert mu me suis insisté ma ko au fait non, la affaire bi demee Je me rappelle. ci man carrément mhm. ma xam peut-être lu je wala euh, guest. mais sincèrement lii daf moo ci man d'accord d'accord ma gis ni ah Je yee ci gént gi nga daal gauche droite <laughs> man mosumaa xam ne dangay ngay karaate. xaw naa <laughs> nga dóor ko gauche droite yëkkati ko mbot ko teg ko ci lal bi. en plus mu ngi def teinture bu bleu yow tamit yaa ngi def sa tentre bu mauve. Mhm. bu am jom complicité bu garaaw bu nekk sa diggante ak Pama Dieng. Mhm. malgré sa rakk la mais am na ña nga xamante ne. Mhm. peut-être ñu ngi ci euh, famille bokk nañ nday ak baay mais complicité bi nga am. ci sa diggante sa rakk néew ma amul euh, de nos jour mais dafa bareetoo. waaw macha allah nag mhm. euh, ñun suñu famille dañu am euh, macha allah dañu am complicité. Mhm. ñun ñëpp ba pare euh, yàlla def na ñun ñëpp ñu macha allah ñu ñu ñu ñu déggoo quoi dañoo suudewu parce que xam nga famille su fekkee dañ leen a yar de telle sorte que mag mooy jiitu rakk topp ci ginnaaw mhm. yàlla mun na def ngeen am complicité donc noonu la suñu famille boo seetloo ñi nekk mag

Mhm. D'accord, en parlant de Pamadien mhm. euh, dama gis euh, Paco Brisan mu mhm. ñëw euh, ci clip bi joué ci lu doy waar andi ci participation bu nice bien vrai que ni rappeur là, mais da nga ko choisir andi ko le clip bi ak yow pourquoi nga choisir Paco Brise def clip bi ak moom waaw euh, déjà Paco Brise comme Pama ni mu nekkee sama frère mu moo sama frère Paco noonu aussi noonu la nekkee sama frère. Mhm. parce que ñoo bokk benn koñ bu ñuy yeewoo. Mhm. donc euh, chaque jour dañuy gisante. Mhm. su may su may su may génn sama sama buntu kër. su ma génnee noonu rek dama koy fekk moom aussi mu nekk nit bu humble. nit bu simple heure bo génnee yaa ngi ko fekk mu ngi tok ci gaay yi foofu. di waxtaan di kaf di naan attaaya suma ñëwé ñëwee damay garé taxaw. jël sama temps ñu waxtaan man ak mom déjà dafa am complicité bu nekk sama diggante man ak mom donc mu nekkon nak vidéo bo xamante ni. Mhm. on avait besoin. on avait besoin de tourner à corps à peut-être amener une complicité. parce mhm. que juste pour nous firi pour nous pour nous mhm. fort, pour nous mhm. donc euh, j'ai dit pourquoi pas Paco Brise mon mhm. frère bon nga xam talent mashallah et puis chale chale bu jantal la ma <laughs> nuyu vraiment sama frère Paco Brice di ko mhm. wax ne ko euh, euh, choix bi ma koy porter su ko neexoon mhm. mu mu difficile parce que star la mhm, star la nit yi dañ nek ci ginaaw nit yi bëgg ko bu wote waa Yoff yëpp dem muy ji wa aduna donc mënoon na ma jaay affaire mais bima ko waxé ne ko allo Pakito mu ne ma waa Pakito la koy woowee ma ko mais damay tourner clip dama bëgg yow yow yaay tourner clip bi xaaral ma la son bi nga déglu ndax nice na déjà mu déglu ne ma waaw li dafa nice li man maa koy tourner donc ça m'a fait plaisir suis yuppi ko dafa ci <laughs> donc remercier encore. voilà Sebel man je ma la nga génn yam ci pako brise tarxis di dama sa tank bi dafa dara lu non après dañ ko massé. ni nga ma di parce que dama <laughs> li nga tarxiisee dafa metti <laughs> te amoo fenn foo jàpp jàppandu. billaay boobu reef bi jaroon na ko loolu dafa bintaan nañ imaginer rek. voilà ngay génn dara génn rek yem ci moom. dëgg neexul eh, dëgg neexul régie man clip bi duma ci doyal ah su baaxee rek ngeen mayaat ma clip bu rêve d'amour ah ndax nee naa la seddaay bii xale jigéen ñi day leen génnee fer yi di génnee cuuraay yi di dàbbali di teg son sabel bi rêve d'amour ndax rêve d'amour nekk na tub ba nga xamante ne jamono ji mu ngi yëngal àdduna donc régie ñu dem xooli clip bi rêve d'amour ñëwaat ci plateau bi ma Sabel ah clip baa ngi noonu ñu seetaanoon ndoo ko waat ensemble mu nekk la nga xamante ne man bintaa duma ci doyal Sabel euh, damay ñëw euh, ci euh, paroles yi damay ñëw ci paroles yi ndax danga wax benn affaire ba nga xamante ne de nos jours euh, bàyyi jar naa bàyyi xel danga ne biddéew nga ci say biir jongo ma nga tarkal kenn dootu ko naatable ci mim réew teg ci yaa ngi toog ci sa euh, wetu yaay lan nga bëgg a enseigner foofu euh, waaw li nga xamante ni maa ngi ko bëgg a foofu rek mhm. juste tey xam nga ñun bu ñuy way mhm. mën nañu wayal suñu bopp mais mhm. mën nañu wayal tamit publique bi parce que tey da ngay xool tey de nos jours tey euh, peut-être euh, macha allah bu fekkee yàlla may na la. loo xamante ne nit yi mën nañ la xool tuuti rek. donc ba apprécier la te taxul peut-être euh, nga changer. wala taxul tey jii peut-être nit yi fu ñu la normalement bu ñu lay séentu ci loo xamante ni lu ñàkk fayda la mhm. wala lu euh, doy parce tey euh, ñàkk a toog sax sa kër yaay mën na bañ a nekk ñàkk fayda mais toog sa kër yaay ak ni nga koy déggee mhm. parce nit mën na bañ a dëkk ak yaayam te mi ngi toog ci wetu yaayam parce mu ngi am kilifa mhm. donc euh, juste li may enseigner foofu rek mooy taar bu la yàlla mënti may ak tey ji noo mënti mel xamal ni da nga war a am kilifa parce que loolu fa bokk suñu culture sénégalaise donc moo tax foofu ma wax loolu noonu dama jaayu ci place xale jigéen ñëpp ñi nga mhm. xamante ni tey jii ba tey ñi ngi euh, sàmm seen culture sénégalaise donc moo tax ma ne euh, bidéew laa ci samay morom dama jongo ma mel nu ma neex su may dox ànd ak samay fem mhm. maa ngi nii man dama tooy bañ may laaj lu may diwoo xam nga sama sourire ak sama regard te maa ngi toog sama kër yaay loolu mooy sama pouvoir hmm. parce que loolu pouvoir la boo xamante ni tey euh, yaay gàllaaj la waajur gàllaaj la ci doom Mhm. donc euh, Bo amé kilifa. Mhm. da ngay am way da ngay am donc parole yaa nonu ñoko dégg ndo bo amé kilifa da ngay am ah, ndax na la nga la euh, ci donc ñun ñi nga ay toujours nañuy xol ci anam bu rafet ñukay défé ndax pour nettali bi mëna rafet euh Sabel ñu ñëw euh, ci ñu ñëw ci clip bi ñu gis ni yaa ngi ci ànd ak suñu frère Pape Didier ah mu def ci liggéey ba nga xamante ne bu doy waar la mu am ay couleur yu rafet ngeen sol en tout blanc nga ànd ak ay xale yu jigéen ña nga xamante ne ñoom it ay biddéew lañ yéen a ngi nekk ci benn yoot ah ngeen tourner clip bi takk seeni lunette réalisation bi ak Pape Didier nan la demee woon. Euh, macha allah. Pak DJ genre bu euh, mel ni Pak DJ ak euh, yenn réalisateur yi nga xamanteni euh machallah ñun dañ leen soxla. Mhm. tay ci euh, parce que tay musicien bu fekkee da ngay son mhm. su fekke da ngay investir ci musique bi ngay def. Mhm. te amoo réalisation bi la neex. donc du du neex. donc bo amul réalisation bu leer. bu nit yi apprécier tay du dem. parce que ñom ñoo ñuy dooleel donc euh, Pak Didier nak euh, ma koy nuyu bu baax baax parce que c'est un réalisateur bo xamanteni euh vraiment limi def daf koy jox ak mhm. daf koy def ak xol donc daf koy def ak xel mhm. euh, loolu mën na nice mhm. ya ngi ñu gis non noonu bi ñu son bi ba pare ñu sentir ko ci pour mu tourner ko biñ mu tourner lee aussi regretté wuñ ci dara donc nga gis ñu nek ci yoot boobu non ba tey ñu nekk biir Sénégal parce que mhm. Sénégal aussi am na ay sites yu nice am na ay milieu yu nice macha allah yoo xamante ni war nañ chaque jour di ko wane mhm. di ko valoriser mhm. donc mu nekk ci euh, côté sali côté Ngaparou lañ tourner clip bi ñu foofu noonu donc euh, ñu nekk ci yot bi ak euh, macha allah biddéew yooyu noonu ngay wax nga xamante ni ba tey si sama famille sax ci samay famille parce que ñoom ñaar ñëpp sama ay ñees lañu ñaar ñu xees ñi keneen ki ci des sama rakk la donc ñu nekk ci yóot bi ñu nekk samay xarit mhm. ñuy wax keneen ki ci des sama rakk la donc may leen dañ leen dem mhm. Mhm. ñu waxtaan ka foore comme ni koy defee chaque jour parce samay complice lañ ñoom ñëpp tout était naturel. Mhm. Machallah, allah boo gisee da ngay xam vidéo bi tout était naturel. Mhm. donc euh, voilà quoi c'est ça. bon euh, Sabel ku gis euh, réalisation clip bi. Mhm. xam ni jëlal na la temps. ndax clip bi nek na la nga xamante ne lu yànj la du aussi la nga xamante ne da ngeen ko tourner ci Ben fan. ba pare jamono ji gis nañ ah, corona bi ñëw dans dal si kaw. te dépensé nga ci financièrement. dépenser nga ci euh, mm-hmm. xaalis bu takku mm-hmm. mais xamna do meuna wax njëg li mais clip bi dépenser nga ci mm-hmm. wa clip bi nak euh, comme li nga wax rek ku sétane li nga xamni franchement dépenser na ci euh, tey su li li ma li tax ma wax ko sax mooy ku ko njëkk a seetaan rek tey loolu nga may wax ku ko njëkk a nga naan ma non mais yow clip bi dépensé nga ci de parce que ki ma ko njëkk a tegal bi bi mu ko seetaanee rek loolu la ma njëkk a wax ma ko waa dépensé naa ci nag macha mais foog naa ku bëgg lu baax il faut que nga donc euh, li wax naan il faut souffrir pour être belle <laughs> c'est ça donc euh, moo tax macha allah xaw nañ ci sonn nag torop financièrement dépenser nañ ci lu bëree bëree bëri macha allah jarul nag ñuy wax euh, somme parce que tey suñu passion jaral nañu lu ëpp loolu mais aussi amoon naa ci ay nit yoo xamante ni peut-être accompagné woon nañ la ci accompagné woon nañ ma ci mhm. ba tax métti na mais Euh, mënoon na gën a métti gën nañ ma ko oyofal ku ci mhm. mel ni Maya mhm. tey nga xamante ni maa ngi koy nuyu sama sœur bi nga xamante ni tey boo seetloo ci këram mhm. la ñu tourné euh, vidéo bi ku ci mel ni euh, doomu ndeyam Lay Sène waaw ku mel ni tey Moussa Versailles donc ñoom ñëpp jàpp nañ ci affaire bi ak Amour Beauty ñoom ñëpp Amour Beauté ñoom ñëpp jàpp nañ tey ci ci ci liggéey bi ba tax affaire bi xawoon na gën a oyof oyof d'accord Sabel man euh, dama la yàgg bëgg ndax euh, ci sañse rek ngay dox <laughs> te lépp loo sol rek euh, classe la te clip bi yaa ngi ci sol ay xeetu rob yu doy waar yéen a ngi ci sañse lu rafet vraiment macha allah sañse nga ci clip bi lu rafet lu doy lu garaaw ñan ñoo jàpp ci combat bi ba tey Sabel tey mën a yaanji daal di génn def ay xeetu robam am na benn robe ba nga xamante ne après émission bi moom danga ma koy jox mm. mooy bi ñu fànt bi mhm. <laughs> boobu Versailles <laughs> waaw bu weex beeg ay gis nga tenu euh, yu yu yi nga ci gis noonu ma def ko. Mhm. Euh, bu orange bi ak beneen bu am na beneen bu euh, bu mhm. blanche bu ma sol. Mhm. bu xamante ne dafa stylé nii boobu afcha la Lou Evans mu nekk moom aussi xale bu tuuti boo xamante ni macha allah dafa am talent. moom mooy def tenue stylé yooyu noonu. donc robe bi nga bëgg nag. boobu xam naa ne Versailles. incha allah bi sama gars yi nekk foofu ñoom Xaadim Bamba. Ah, ñoom Astou. Moussa borom Versailles.

juste pour faire la différence. moo tax ma taxaw feccal sama bop d'accord parce que xamna ni ne ma fecc trop trop trop. Mhm. mais amna présence quand même. Mhm. Mhm. nekk scénique boo xamante ni su ma touti tuuti rek affaire bi meuna marcher. mané la ma xaar ma jéem ko essayer forcer ko. far affaire bi dial affaire bi jàll voilà. voilà euh, Sabel. euh, dang may may a cappella euh, ci rêve d'amour bi. ndax nenañ nañ euh, lu neex du doy. lu duuf ci nak bi yop xajul ci cin dang may may a cappella ah bo paré nga daal di tàggoox téléspectateurs yi. Binta wax ma ko bëgg waaw waaw ki la téléphone nga bëgg Bamba wax ma ko bëgg waaw waaw eh. ki la téléphone nga bëgg papa wax ma papa wax ma ko bëgg waaw waaw ki la téléphone nga bëgg man mi man ka laa bëgg. foog nga wax ma ki nga bëgg. di ma fon laa bëgg. <laughs> voilà Sobel nee la toujours man mbégte laay am ah ak contentement di jàkkaarloog yow damay bëgg di di la gis ci sama wet ndax euh, nee naa la ku la gis euh, dangay ngay yokk euh, nit courage da ngay yokk nit jom parce que tu une femme battante ah dama lay bàyyi nag nga tàggoog téléspectateurs yi xam naa ni du yàgg dara ñu invité waat la si suñu biir émission lu bees ndax yaa ngi wàcc beneen affaire bu doy waar. waaw Binta nak euh, limay tagato moy mooy di leen euh, félicité télé mhm. télémusique di félicité ki am initiative bi mhm. parce que tey euh, mënuñu nak jaar fi mhm. ba jàll te quand même duñ ko féliciter. parce que comme initiative def télémusique. Ibrahima Khalil Seck juste voilà Ibrahim Khalil Seck. vraiment chapeau à toi. parce que nak tay xey né damay def télémusique. juste pour one

voilà di gërëm waa Bargny <laughs> sama sama dëkk <laughs> Bambilor usine bentali tali <laughs> bàyyiwuma kenn donc euh, merci à vous di euh, remercier encore sama staff sama manager sama directeur artistique réalisateur bi réaliser clip bu nice bi sama famille bàyyiwuma kenn ma ngi remercier ñëpp make up bàyyi Ndaya <laughs> merci beaucoup voilà mais que Baye Ndeya l'émission tira à sa fin ni lay demee ajuma bu jotaan ah, damay xool artiste bi nga xamante ne génnee na lu bees tàq ma invité ko ci plateau bi ñu ñëw toog waxtaanee clip bi ndax émission lu bees dafa nekk concept ba nga xamante ne gisaguma ko euh, ci réew mi ndax nekk na la nga xamante euh, ci clip bi la wax ci clip bi dong la ñuy wax ndax dong moo ñu tax a ndax des fois ñoom it dinañ am la nga xamante ne neex na leen ci clip bi ñu bëgg ko wax mais amuñu opportunité bi Ibrahima Wally Seck tey yombalal leen loolu donc ma ni damay naan chapeau à vous waa régie ah di ko jiital ci Xaadim Maam Bamba teg ci ah, Sotrac ah ñoom Papa Thiam ñoom Laay Bamba aw ma seen fay nee naa leen lépp bu baaxee yéen la man Binta damay toog nii di wax rek ah di jëfal bu baax a baax a baax ki ma habillé tey ah muy euh, dem Bari borom Bari Choose fële ca marché Colobane nee naa la dal yi bu rafetee mu daal di xool dàll bu gën a yaañji ne ma Binta jëlal dàll bi nga sol daal di dem def sa émission daal di bégal euh, jaami madame Bari nag tay dama lay boleh ka nga xamantene ne Xaadim Bamba dama bëgg nga jokk ci ciusi mu dal di soldat di pëndal ah, di jaajeufal bu baaxa baax Sali Diallo ci bi tay nak ensemble bi sama mag sama xarit mooy un chéri Ablaye sa tay mo génnee tay ba baax nee ma rakk tey ngay sol dem def sa émission donc di gërëm aussi Aïcha Aïcha mi nga xamantene mo and ak Sabel ndax euh, sonal na ko trop mom tamit mu nekk nit ka nga xamantene nit ku baax la ku ñàkk ki ñaan ku amul ben problème ku bëgg nit donc euh, chapeau à vous Télémusique Sénégal comme ni ma leen koy waxee rek mën na lu nekk ndax mën na lu nekk day fekk fu amul dara mu def fa dara comme ni ko Sabal waxee rek amul xaaj amul seen tey xale yu bari ndeysaan dañ doon am problème pour ñuy teg seeni clip mais ku indi sa clip Télémusique euh, chaque jour da nga koy gis muy jàll euh, ci télé bi donc nee naa Bamba yokk cere doolu ñeex ndax liggéey bi ala accu donc régie may leen ma kii bu Sabel rêve d'amour bi ma ko sama invité bu yanj bi ne la woo daal di